mbokk yi Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ñoo woote bésu le 27 février arène nationale Fallou boole ay xale yu ës mën a bëre teg ci mën a xeex lool. looloo tax ñu dem jële ji Jokal daal di koy boole ak Ada Fass l'expérience de Jokal fera face à la jeunesse de Ada Fass bulldozer caatu yaraax combat espoir waaye làmb ji nga xamante ne ni jaay na boppam bu yàgg diggante Laurent Ndiago ak Bou Siteu combat yi. ci bés boobu Tony Junior dina fa jàkkaarloo ak Jackson numéro 2 Baba Jaxal dina fa jàkkaarloo ak Kelemaso Soq numéro 2 ak Bekaay ci bés boobu la ñuy bëre Sekk Ndaanaan armée 2 ñu fa jàkkaarloo Papa Siteu ak Franc Mbeur dinañu fa jàkkaarloo Karbala armée Dieye foofu la ñuy bëree waaye Caatu Saf dina fa jàkkaarloo ak Njaak magicien mbokk yi lamb ji nag du daw ci benn tele en direct lay doon pay per view ngeen mun ko am ci seen affiche point com waaw ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen waaye tamit di féliciter Sénégal yëpp ci Coupe d'Afrique bi nga xam ne gagné nañ ko muy première fois Sénégal di ko am ñu ci féliciter bépp doomu Sénégal tey nag ñu ngi jàkkaarloo kan Omar Kane rëg-rëg mu jëm ci bis bu mag le 20 février digganteem ak kan rëg-rëg bu Guédiawaye rëg-rëg bu cene ba muy lamb joo xam ne yaakaar naa ne ah nar naa metti de waaw waaw dina metti dana saf ndax nag olof a ko faral di wax lu bindoo ni tama faw ñu tëggee la ñaari boor lay waaw maa lay fay Babacar di wax auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Yonent bi di ñaanal sama papa ak sama tant yàlla na leen yàlla xaare àjjana firdawsi di ñaan di ñaanal sama yaay yàlla nag fi yàlla bàyyi ba si kanam ak kanam kanam mhm. di nuyu sama papa yi bu ma limee damay jum sama bàjjandi maa ngi leen di nuyu mhm. sama doomu baay maa ngi leen di nuyu ah di nuyu sama gars yi ma àndal ku si mel ni Birane Momu hmm, Seex mhm. Kolifay 2 hmm, euh, Mour Sène sunu grand Leyti ñu ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu dem daal bu ma limee damay jum di di nuyu tamit fukki penc ñaari ñaar waaw di gërëm waa Caare Géej aw ma seen fay. waaw aw seen fay ndax ginnaaw yàlla ñoom ñoo tax may reyante. Mhm. di nuyu tamit waa Caalaan Jonwaar ñoo joor Falia So Basar Basuur ah Mar Lodj Mar Faafako Mbar Sulu. Hmm, Nangaan Samb. Hmm, euh, Joof Yor Fimela. Hmm, seen ñëpp maa leen di nuyu ak waa Mbeelen gi di la nag combat bi seen combat la ak waa Caalaan awma seen fay maa ngi leen di bu baax a baax a baax a baax a baax di nuyu waa Kaolack mi loolu li may daal damay jum maa ngi bëggee ñëpp di yëpp di am contentement nag si Lions yi di li ñu def ndax ndax boo xoolee euh, doon nañ ko jonge ay dem nañ dem nañ ci beneen final ñu ñàkk deuxième voilà deuxième bi ñuy ñëw yàlla sunu borom may ñu si ndam mhm. kon ñu ngi koy félicité Sénégalais yëpp yéen wax nag am nañ contentement bu baax a baax a baax di leen ñaanal ñoo xam lu ñu bëgg yàlla na suñu borom defal si bari seen amam am na mu mel ni salle bi ñu la fekk moom mooy Dream Fitness ah. du noonu la tamit noonu la demee anglais la da defe naa. waaw ah, anglais la Dream ah, Fitness. Ah. waaw di nekk fii ak suñuy coach yu baax ku mel ni Gaucher. waaw ah ak Ousseynou Ousseynou moo toog nii. gaa yëpp daal ñu ngi si waaw Dream Fitness moom instant bi nice. xam nga ñaata fan moo des ci combat bi. dafa mel ni un jour si des de. un jour ñaa ngi jàpp bés de. ah mais combat nañ am moo tax dañ koy teg dañ koy teg si règle bi quoi. Mhm. Mhm. combat bi nga xam ah, bi nga am xam nga ban tayoo la am ci sa carrière maanaam ci sa siitu carrière parce que mbër mi ngay bëreel ku ne xam na ko bërekat la équipe nationale ba ñuy wax sax yaakaar naa ne mës na faa dugg. xëy na dañ ne lekk lopp moo ko fa jëlee woon ci li ñu wax defal lii mu daggi ko ama moom ku ko xam-xam moom dafa amee sañ-sañ. muy mbër moo xam ne mbër mu mag la du mbër mu ndaw muy guy gi di ko nga xam ne palmarès bu leer la bind ci làmb Sénégal nga jël ko di xale ngeen war a jàkkaarloo tey combat bi niveau bi mu toll ak dayo bi est-ce que natt na ko. waaw avant tout sax damay damay gërëm euh, capitaine Thiaré yëpp maa ngi leen di woo bi ne leen wax nag combat bi seen combat la waaw képp doomu Thiaré fu mu nekk rek maa lay woo ne la bi seen combat la mel ni euh, maa ngi oo buur. buur maa ngi lay oo si combat bi ñëwal nga jàpp si bu baax a baax góri maa ngi lay oo si combat bi ñëwal nga jàpp si waa dëkkër yëpp maa ngi leen oo si combat bi waa mool 8 waa mool 2 ñëpp maa ngi leen oo si combat bi ñu ñëw jàpp si ak waa asalem abo abo fall maa ngi lay oo si combat bi ak waa asalem yëpp di leen oo si combat bi ndax combat bi combat bu ma amoon solo la sama carrière combat la woo xam ne tey jii maanaam dañ cee war a ñëw jàpp ñëpp dañ si ñëpp ñëw jàpp waaw maa ñëw ñëw si ñëpp ñëw jàpp waaw Euh, ma ne la bi xam nga ko. waaw dayo combat bi. dayo combat bi waaw xam naa ko di nuyu tamit sama benn grand mu naan bokkum see Salim maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar wax na la combat bi sa combat la ñëwal nga jàpp see Salim ah jaajëf waaw combat bi combat rek ndax comme yeneen combat ndax man bis du si man combat la rek. Mhm. mais boo ne combat la rek comme yeneen combat te combat bi ñu gis que ni dem nga ci entraîné ji wuti ci doole defe ci lu bare bare bare bare muy combat boo xam dem nga ñaari voyage dem dellu si kon boo ne combat bi comme yeneen combat la rek dinañu xaw a jaaxal yaa ngi dégg euh, maanaam est-ce que moo ko yeneen combat yi ñoo tolloo niveau wala lan la non combat la rek combat moom mënoo weesu lu dul combat boo amee combat ak yaaw jaal sax da naan lan da naan la am nga combat kon combat rek yoon la ñun ñu dem entraîné ji ndax saa bu ñu amee combat lañ koy faral di def dem États-Unis entraîné ñëw jàppaat suñu kil loolu la quoi mais combat la quoi combat la mais boo ne comme combat rek comme parce que combat yi fi jaar da nga koo daan xëy na benn nga ci bëree mu xaw a difficile tuuti difficile na sax ci yow mooy sa diggante ak Elton mais à part ça yeneen combat yi des mën nañ amul ci yow difficulté bu rëy te combat bi ñu bëri jàpp nañ ne guy gi bu ëndee doole te ñu bëri gis ko danañ kii yor na doole mën na am li nga xalaat yow ci sa bopp jàpp ko ci combat bi loolu mën na laa war ndax guy gi mbirum loxo la te itam tëlewul bëre Mm-hmm. waaw te loolu bëre sampion bu mag la respecté nañ ko bu baax a baax ndax kenn ku ne daal dina ànd ak ay mbokkam préparé di ñaan yàlla suñu borom mooy ñu ndam mais léegi yëpp amul solo. am solo nag rek. naa non amul solo si man. ndax solo de parce que daa mën a bëre. waaw mën naa bëre nangul naa ko lépp mën na bëre mën na lépp lépp mën na ko te wërsëg bi dafa bëri. loolu sóor nga ko. bu baax a baax. wërsëg bi wërsëg wi nag bëree ko ko may. expliqué xaa déggoo moom laa la expliqué sampion la gaa li mu fi def si bëre dóor defuma ko waaw sunu grand frère la may nañu chance dañ koy respecté jox ko cër bi moom champion la daal boo bëggee dégg-dëgg ndax daan na fi ay ndaanaan waaw ku daan ay ndaanaan nag ndaanaan nga. mais mais moom dafa siire que ni moom dafa bu ngeen bëree lu ci mënta xew bu bëree amee maanaam jàngal la bëri moom wala corriger la day am. guy gi mën na la jàngal bëri. yàlla baax na nañ bàyyi ba le vingt rek soreetul ndax liñ ci wax dootuñ nga waxaat. non fii moom non fa nga doon waxee ak fii du benn. xëy na moom loolu la jàpp fii Lamine la Fatma Dia la euh, pël bu rafet la Babacar la. waaw moom laa lay expliquer maanaam euh, moom lu mu jàpp moom loolu la jàpp dañ ko ko bàyyil ak jàpp boobu ba jour ba rek. incha mu jàpp man naa ne. non ah yàlla suñu borom moo xam nag mais daal en tout cas daal man li may faral di wax. géew ba li fay li fay ne. maa koy def. yaay yaay def li nekk waaw maay def li nekk sa géew ba ah, xaaral ma wax la benn affaire. xam nga uppa. uppa déedéet wax ma ko. mooy maanaam ba ab xale. xale bu ndaw. Ah. di dem géej. doon ab uppa. moom day xiif pour maanaam am naram mag. te naram mag boobu. ku taxaw si kanam dalay faxas dem am naram mag. Hmm. mag guy gi noonu la demee. kon léegi nag ñi may wax loolu. lébu yi xam nañ li may wax. ku doonul lébu doo ko tekki. Hmm. yow mii mënoo kaa tekki. man kay li ma ci xalaat mooy naram mag mooy. maanaam xale buy door a dem géej war a uti jënam. day doon naram uppa. waaw doon daram uppa. uppa mooy maanaam uppa. bu ma la ko leeralee du ma ko leeral sax. non non du ma ko leeral loolu dañ koy euh, dañ koy def code. incha allah bu ñu bëree për nañ leeral loolu. mais guy gi am na mbokki lébu dama ne la. narab uppa. uppa laa la uppa. xam nga day day lii nu mu tuddee day fuqale pour bëgg dem am naram mag léegi lu nekk si kanamam da koy faxas pour bëgg am naram mag. yow waxin la nag lébu ñoo ko xam. yow kon noonu ngay dikkee ci moom. incha allah si kattanu suñu borom. kon moom moom bu taxawee sa kanam keroog da nga koy faxas. ah bu soobee suñu borom loolu nañu ñaan ñaanal suñu borom. faxas nga wax de. incha allah si kattanu suñu borom. mais faxas lu oyof. waaw yàlla baax na nañ ba bis ba rek yàlla suñu borom moom ay mbiram moom déggu may lib waaye dégg naay wolof faxas moom la ma ca xamoon mooy lu oyof nga faxas jàll nga puus jàll puus sax dina xaw a dis mais faxas moom sa loxo rek mën na ko def wala sax ab morso waaye est ce que guy gi ku ñu mën a faxas jàll la est ce que guy gi woyof na ba nga mën koo faxas rek jéggi jàll. mais yàlla baax na nañ bàyyi ba bis ba rek kuy taxaw fi naan rek rek mën naa faxas guy gi wala nangam sàngam non kooku dafa mani maanaam nga wax tey jii nu ma la mën a expliquer nga ne géej gi dama koy ñëw tànq si benn si benn kopp. loolu mënta ne waaw hmm. ah, loolu la nag. Ah, làmb la. xanaa xam lu ma gënoon a neex si làmb ji. Ah. lu ma gënoon a lu ma gënoon a neex waa CNG li waroon a def. trois jël la nañ koy def. trois jël la. bu kenn daanu ñu soufflé waat. ok non ku daan. dañuy soufflé hmm. kenn daanaat. ki daanaat ñu soufflé waat muy trois fois ku am deux yaa gagné. buñ ko defoon. waaw mbëri bëri <laughs> mbëri bëri du naru. maanaam da ngaa bëgg kon bëri door bi léegi ñu def ko trois jëli léegi. mu neex ndax gars yi Sénégal dañoo nam mu bëre. poids lourd yi dañoo nam mu bëre wolu ma sama bopp du question wóolu question maanaam waxtaan la man wóoluwuma sama bopp. wóolu nga bopp ci bëre sama si bëre moom. loolu moom loolu moom si man la nekk. Ah, loolu si man la ne. dégg nga Fatma dañuy bàyyi ba ba mu ñëw rek incha allah moom ah mais lamb la rek. mu ne guy gi bi daanoon Ama Baldé mooy ñëwaat Fatma ne na. guy gi moo wax loolu est ce que bu guy gi ñëwee di nga ko attan guy gi ba daanoon Ama bu dikkee. non loolu mënta ne. guy gi daanoon Ama mënta ñëw non mënta ñëw. foo teg loolu. 2012 ba 2022 kay sa waay. ñaar euh, cinq ans. non dix ans. waaw dix ans. waaw mu ngi noonu loolu da mënta ne. dix ans. as baa ngi fi. doonoon na fi Michelin. Hmm. ak <laughs> waaw kon nag am na yoo xam ne manu ko. xam nga ay Michelin yooyu moom guy gi defe naa dépassé na ko fi mu nekk nii. ndax këpp na fi yalwaanu ay mbër yu bare bare bare. champion la. sa xarit la mujj a daan suma juumulee. champion la xanaa déggoo ma ay naanaan la daan. champion la leen nangul naa ko ak moom mooy capot. maanaam ko nangul ne ko yow yaay capitaine yaay capot. waa baax na ba bis ba incha allah. ba bis ba rek moom daal li ma koy wax na ñëw si jàmm supporteram yi ñëw si jàmm gaayam yëpp ñëw si jàmm ma jàpp kat daan ka nànk mu dem ñibbi si kàttanu suñu borom. daan nànk mu dem ñibbi si kàttanu suñu borom. Mhm. Mhm. daan nànk ça veut dire que kon daal moom amul sens bu bari ci combat bi. non xam nga euh, sens moom mooy li may wax rek yàlla suñu borom moom man moom du ma jiitu yàlla suñu borom quoi man lu may wax rek dama naan bu soobee suñu borom xëy na nag moom waat na fi. nekk ma bu ma daanoon bu doon ab yëxut mais yooyu yëpp amul problème guy gi. mais yooyu yëpp est que guy gi wax loolu. mais mu ngi si TikTok bi mu ngi si ñëpp xam nga làmb dafa doon sport sport boo xam ne mais wulu boppam rek. xaaral làmb dafa doon sport boo xam ne tey jii maanaam. man ngaa man nit ki fuuf mu ñëw mu daan la kon làmb man sama gis-gis du ma si waat comme waat yooyu wala téye kaamin nangam nangam noonu la. làmb nañuy def day saf sap ak làmb. day saf sap ak làmb waaw. mais est ce que moom waxewul ci cadre sport bi muy def parce que xëy bu wóoloo bëreem wóolu li mu liggéey wóolu dooleem est ce que amul droit jàpp ne moom mënuloo ko daan. waaw moom bu jàppee ne man mënuma kaa daan mu ngi nax boppam nga xamante ni moom mooy rëg rek xeex te boo gisee bëre bi moom da ci am favori est-ce que avantage xeex bi moom mën na koo appliquer ci côté ak guy gi. yaa ngi dégg li Fatma waaw mais guy gi daa xumaa xeex. non guy gi moom wax dëgg yàlla ñi xam boxe xam maanaam ni ñuy xeexee xam nañ sax guy yu maa ko dàq xeex. Hmm. yaa maa dàq xeex guy gi la non dama xam ndax ni muy moom boo leen xoolee ay combat garde bi day baissé wu boo leen xoolee ay combat yi muy dóor du baax. mais man nag seetlu naa leen de mësuguma gis mbër atteindre ko ci coup bu garaaw de. coup bu garaaw ah mais. mais mais mais nag loolu loolu du dóor mu daanu yow tey jii dama ab laaw la rek mu sos mbëkk ka. mais laaw bokkul ci làmb. non ci la bokk mais tey jii koo koy booy laaw koo xam ne moom moo la dax xeex dina du ut ak yeneen ni du la. mais maanaam mbër da koo xamal la Fatma Dia wax laaj am na sol parce que guy gi même bu mënuloo xeex même bu gardam di wàcc comme ni nga ko jàngate mais mësuñoo gis mbër duma ko. loolu moom mësaguñ kaa gis waaw yóbbu ko ardo daan ko gisaguñ ko de. ah gisaguñ ka mais yàlla baax na nañ bàyyi ba bis ba rek incha allah yow xalaat ne war nga ko mën a def loolu. non yàlla baax na nañ bàyyi ba bis ba incha allah lépp dina baax. non yow mi topp gardam parce que Fatma daa wax nga ne ko garde bi day baissé maanaam day wàcc loxoom ça dire que garde bi ci suuf lay ne da nga xalaat sa loxo dugg fa. yàlla baax ba bis ba rek buñ bàyyi ba bis ba incha allah di ngeen xam man lan indi. waaw hmm. ah, allah. discours am moom dañu gis ne discours yi dafa changé par rapport ak yeneen combat mi wala avant combat bi da taxaw lan la lan yaakaaroon wala lim yaakaaroon ci guy gi ndax dafa contraire bi. <laughs> waaw da ngaa soppi waxin de. non du question soppi waxin sax. gis nga guy gi. boo ko toppee si ay wax. mën na laa jaxase ak sénégalais yi. te loolu dama koy daw. Hmm. maa ngi faral di wax benn baat. guy gi man bu ma ko daanee. Hmm. mën naa wax ba ñëw. mais man bu ma daanee du ma wax ba ñëw. ndax mënu maa wax. dégg nga ma. voilà noonu la demee. moo tax nit ki da nga koy bàyyi muy wax rek buñ ko géew géew ba mm. le 20 février si kattanu suñu borom géew ba buñ fa duggee mm. di nga gis beneen rëg-rëg mais ñu bari nag jàppuñu li nga wax de ñu bëri dañ jàpp ne maanaam la nga doon wax ak ki nga gisaat bi ngeen gisante waat dafa am différence non ban différence la am guy gi guy gi ne nañ daal liggéey bu baax guy gi nekkul si dara ban différence la am wàññi poids loolu dara bokkul si làmb ak fooy wàññee poids bu bëggee gaaw nag xanaa déggoom ak fooy wàññee poids koy bu la boo ko dàqu la bëre nooy def. guy gi daaxu laa bëri. waaw yow yow yow Babacar yow xam nga ni sax guy gi maa ko dàq bëri téeméeri junni yoon yow xam nga loolu. man mënu maa xam si xam nga kale. Ah, mais mais ñaala moo tax mais daal. xam nga ni yow guy gi maa ko bëri téeméeri junni yoon xam nga ko loolu. mais guy li ñuy wax comme maanaam ma jox ko ngem sama ngem mu jàpp ba pare. waaw jël bi si lay gën a ñaw. yow ñi ma ngaa jox guy gi mu dugal laal ñaari loxo. Eh, man yow man ay donkeer ragalu ma dara bëre la. bu fekkee bëri la rek fii la fii la buujoo li nekk fii newul si xelu guy gi wallaay laajum du caaxaan yaa gis nañ ni. bi combat bi bi léegi ndax TFM la ak fii moom mu ngi takk rajo yi di wax rek mooy mooy bi rek moom mu ngi takk rajo yi di wax rek moom lu mu doon def noonu li maanaam takk rajo yi man la waroon a man la waroon a nag si bu ne moo wax mais moom bu demee ba. xelam mi xaw ma lu si nekkati dañ koy bàyyi ak wax ji rek mais bu bis baa daal si kàttanu suñu borom yàlla ñu yàlla may ndam te incha allah damay am ndam. gars yi danañ arène nationale dañ faa nam arbitre soufflé xeex bu métti am jël bu rëy am te arbitre du wax. ñëpp jóg ñi bi lépp dina am allah dinañ xeex dinañ bëre bu ma mënee dékku nag laa wax. bu la mënee xaw ma nag bu ma dékkuwul. da yaakaar amul lu la mën a dékku. non ah man laa wax comme maanaam guy gi laa la bu ma dékkoo. dinañ xeex dinañ bëre xaw ma nag mu bañ maa dékku wax laa lay wax nag mooy moom moo koy man kan mooy diriger. géew ba kay man maay diriger. loolu moom samay yàgg ngeen maa ngaa gis liy xew sa géew ba maa koy def samay combat lool loolu laay wax te du ma si mës a tegg ginnaaw waaw. yaay diriger nga wax. maay diriger toujours man nga maa ratatati nii si média bi rek mais at bi bu sëflee maay diriger foofu loolu moom close nañ ko. ndax loolu mooy maa koy def. parce que waaw. suñ la laajee fooru guy gi lan la lan nga ñu tontu lan lan mooy fooru guy gi. guy gi. fooram. non nag ah, xanaa daan na yenu daan na yenu mais xam nga nit ki moom boo amatul doole nooy yeno <laughs> non non loolu laa xamoon si moom te defatu ka. yenu kese nga xam ci yenu rek laa xam si moom te defatu ka. mënu laa yenu. non guy gi mënu maa yenu ma doonoon quatre-vingts kilos. guy gi mënu maa yenu ndax am naa bëre boo xam ne guy gi du ma yenu man lépp laa ma ne ah. man lépp laa ma ne lépp sa for lan moo gën lan laa ma ne lu la gën a arrangé ci bëri laa ma ne lépp man maa doon mbër moo xam ne aw ma foor tey da nga may séntoo fi ma ñëw ni yéen seetaan ngeen ma mbapat seetaan ngeen ma xaareen est-ce que ni ma daanee mbëri ñëpp ñoo yam yamun waaw mais mais mais xam nga fooru mbër xam nga guy gi nañ day jàpp mais yow it non man de xaw ma am nga fooram déet Lamine waaye waaye xam naa da ngay jàpp moom say loxo daal bu jàppee moom di nga def li nga bëgg a def wallaay aw ma foor aw ma foor de mais daal dama ne yow xam nga ni guy gi moom yàlla baax na daal nañ bàyyi bu la allah <laughs> incha <laughs> mu mel ni euh, combat bi lim la mën a jural bëri na waaw parce que nag combat la boo xam ne combat bu mag la ci combat yu mag yi la bokk lim la mën a jural boo ci jógee yaa ngi koy xalaat. waaw ñu ngi koy xalaat bu baax a baax mais daal ñun lu ñu échange lu ñu ëppal ëppal solo mooy suñu combat bi nañ naan yàlla suñu borom ñu génn seeg jàmm ak salaam yàlla suñu borom mooy ñun ndam loolu la ko Euh, euh, ci biir wax ji Fatma wax na la ko dinaa ci dikkaat xay na wax nga ko nee nga ki dikkoon ci ama mënta dikkaat ndax ndax fukket dox na ci diggante bi ki dikkoon ci yeneen combat dikkoon dikkoon dikkoon te seetlu nga poids bu mu wàññi te boobu guy gi dañu gis ne maanaam am na nox xam ne bu ñu mele day am vivacité day gaaw day mën a dindi loo def mën na koo dindi mën na laa bëreeloo ba nga xoox mu daan la loolu xalaatoo ko te yow dañu seetlu da nga ni ku yokk poids gis nga àdduna maanaam nu ma la mën a expliquer nit ki seen combat mu ngi taxaw ngay nekk si télé bi di ratatati di ratatati ah sa dernière phase sa dernière sa dernière maanaam lu ma ko mën a expliquer sa dernière interview nga nekk di jooy loo xam ne tey jii man na maa wat si yàlla loolu jaru ko ndax sport la. sport la. lu mu gis ngeen ko yéen ñëpp du ma si dem bu aw show bu. non non ñun gisuñu ñi seetaan ak gisul. defal nank rek gis ngeen ka waaw gis nga àdduna nit ki boo ko jëlee làmbu la lambu. Euh, gis nga làmb dafa doon sport boo xam ne sport bu xaw a doy waar la waaw kilifa yi bëgguñu ko hmm. waaw làmb hmm. kilifa yi ñu ko non kilifa foofu laa yem du ma si du ma du ma leeral hmm. mais ak nu mu mënt demee gis nga àdduna nit ki bu sa combat avant muy taxaw ngay ratatati mu taxaw ngay ratatati nga dem ba ban dernier réglage yi ngay génn di jooy naan ah, mbëri mag dañ may ñaanal sax ma daanu loolu man loolu loolu non non loolu du adduna non non loolu du adduna xam nga ma la expliqué loolu du adduna non non mais mais ak nu mu mënti demee ak nu mu mënti demee waroon na kaa tee waaw mais looy ay walla di jooy nangam nangam mbëri mag dañoo nekk di jàpp di nangam nangam fii mbër mu ne boppam la tal mbër mu ne li ceebam tooyee lay wëri. mbër mbëri taluñu ñu ay mbër. kaay ma wax la ko nag tey. mbër moo li mu wax mbër talul mu mbërëm. Hmm. day uti lu mu def wala day uti ban yoon laa war a aw lan laa war a def ba doon roi des arènes mais yooyu nañ ko bàyyi loolu day yàq làmb loolu amul sens. kon li mu wax gëmoo ko. non gëwuma lu tax ma xëy waaye moom bu ko gisee moom la na na na considéré boppam man moom nangulu ma ka ndax làmbu la làmbu nañ ne làmbu la jooy bëgg ñeneen ñëw jàppale la te loolu du àdduna hmm. ah te benn moom rek laa fi gis yow nga bokk ak nit est nga bokk ak moom gox muy bëreeg mbër moom nga ne yàlla na ko mbër ma leen daan lool du baaxul. fan la ko waxee yow itam. rëdd bombardier is bombardier Balla Gaye loolu la waxoon bombardier Balla lu mu waxoon. dana bombardier ku muy ku muy bëral moom laay ñaan moo yàlla su borom may ko te yow dëkk gox géejawaay mais yooyu jaru ko man. man laa la wax sama gox du ma gënal. loolu da yaakaar ne waru. sama waru ko ndax géejawaay lu tax ñu naan géejawaay bala Gaye tax yaa may dégg. ab quelle porte man tey jii bu ma dëkkee caaray géej ma jox la ko si misaal si si misaal laa lay wax tey jii si misaal laa la koy jox. amel dem. bu loon bëreeg euh, Moussa Ndoye. Moussa Ndoye sama xarit la. amel dem laa bu ma mënee yow Moussa Ndoye sax dama koy yow pour amel dem daan ka man on est doon caare géej on est fierté bëgg suñu gox yaa ma dégg noonu la demee ñun moo tax détails yoo xam ne duñ ci dugg. am na solo ok mu ngi noonu. am na solo eh, sa open kañ la. sama open press dafa mel ni le 16 la incha allah. waaw maa ngi koy defee. xam naa ni euh, le 16 si kattanu suñu borom maa ngi koy defee terrain Oryx. waaw. Uh-huh. Uh, looy wax waa GFM tëgg làmb ji Maodo Cissé ak ñi mu àndal. waaw Maodo euh, jàmbaar la. ndax euh, ah, waa entertainment xam nga tey jii mooy lu may expliquer rek euh, maanaam moom borom baax la def na ay jéego combat bi dama na bay nar a yàqu mais moom ak cër bu mu am si ñun ak cër bu mu am si ñoom guy gi permettre na ko ba yàlla suñu borom effacer lépp. mbokk yi Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ñoo woote bésu le 27 février arène nationale Fallou boole ay xale yu ës mën a bëre teg ci mën a xeex lool. looloo tax ñu dem jële ji Jokal daal di koy boole ak adafas Fass expérience de Jokal fera face à la jeunesse de Ada Fass bulldozer caatu yaraax combat espoir waaye làmb ji nga xamante ne ni jaay na boppam bu yàgg diggante Laurent Ndiago ak Bou Siteu combat yi. ci bés boobu Tony Junior dina fa jàkkaarloo ak Jackson numéro 2 Baba Jaxal dina fa jàkkaarloo ak Kelemaso Soq numéro 2 ak Bekaay ci bés boobu la ñuy bëre Sekk Ndaanaan armée 2 dinañu fa jàkkaarloo Papa Siteu ak Franc Mbeur dinañu fa jàkkaarloo Karbala armée Dieye foofu la ñuy bëree waaye Caatu Saf dina fa jàkkaarloo ak Ndiak magicien mbokk yi lamb ji nag du daw ci benn télé en direct lay doon pay per view ngeen mun ko am ci seen affiche point com